jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci jàmbaar mbokk yi nuy nañ leen am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne bu ñu nee la premier mais sa xel day dem ci bis bu rëy boo xamante ni jàmbaar production ñoo ko organisé fële ci arène nationale grand combat bi dox ci diggante Franc ak Bombardier waaye combat bi amateur yi di xaar combat bi nga xamante ni nag moom mooy combat dëgg dëgg dëgg dëgg gars yi nee daggkatu yaram yee xaw ma ndellkat yeeg yu mel noonu doxkatu guddi mooy combat Mbaye Diop Safara ak Niang barki démb dañu daja TFM ñoom ñaar ñu def signature contrat boo xamante ni bu neex boo xamante ni ñëpp ci amateuru làmb yi jàpp nañ ni làmb ji mooy làmb ji démb ñu dem seeti ko face à la presse bi mu doon def fële ca Parcelles Assainies ñu fekk ko fa macha allah mu yëkkati ay kàddu jëmale ko tey nag mbay Diop Safara ñëw na ànd naag délégation am gars yi nee nañ combat bi combat dox ko ci guddi la gars yi nee nañ combat bi fi ko ñang baala teg du loolu gannaaw ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëwee waxtaan bi ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar baa jëlee maa lay jaar di santaat yàlla bu baax di julli ci nant bi xam nga di nuyu kullu kuy doomu géejawaay deretu géejawaay di daw sa yaram. waaw mooy mafia seetal sa bopp taxaw fu wóor doxatu guddee yi mafia bi ne xam nga ñii aw ma seen fay eh, initiative bi bu taxawee ku ci mel ni Demba suma grand eh, moo jël initiative bi na ma comme làmb ji jege seen si nañ def point de presse rek moo gën ñuy xam nga sonal yenn gars yi mooy loolu. di bi nuyu Eumeu Sène ak tayru mi ak Bamba mi nga xamne mom lay andal fajar moma yé ak gawan ak saliw ñoma yé di ma tegg lu met ci entraînement ci diini fajar di nuyu sama papa ji tok muy dam papa isa ka Joor ma ngi koy nuyu diko ziar gis nga luma ma mu jëmmal ma teewal ma xam nga te lamb ji mafia bi ñoko soxla wa jaxay suuf ndol nga né xam nga ñom Modou jaga nga ni tok xam nga sama cheikh bi ñom Karba ñom fallu njool maa ngi nii jooni la waa parcelle di bañ a dégg mafia bi mu ngi nii waaw mu leen di neex mu leen naqari far la force dañ koy dégg ndax mafia bi jooni daf koy diriger le premier incha allah ñu dem arène nationale li fay neex yëpp nag incha allah koy def maa koy diriger ndax ñang baalo daf ma dugal ci làmb ji ndax olof nee na ku la yéenee xiif ku ne daa bëgg nga fande waaye ku la yéene hôpital bu ne faat sa bakkan moo ko tax a jóg te dama ko dégg ni ci face à face bi nee na ma roi Baudouin la may jëmale mais dootu ko defati buñ taqali ko arène nationale la première fu mu dëggatee riirum ba job safara day daw loolu leer na ma loolu wóor na ma ndax dafa ma dugal ci làmb ji waaw sama maam mu toog nañ mu ne ma ku la yéene xiif ku ne dafa bëgg nga fonde waaye ku la yéene dem hôpital bu ne xamal na yóbbu sa bakkan moo ko tax a jóg waaye bu ko ko may moo koy xamal ne ñang baal doo am tuus doo am dërëm làmb ji le premier mai la lamb di dog reconnaître qui est mbay Diop numéro 2 qui est Safara nga baye lolu xel bu baax. sa diggante ñang baal ay ndax ndax lañ ko don tan lañ ko wutal yoon ibo la beurel ci kuj tax ñu naan beur te le premier mai buñ démé stade arène nationale bay jili ngay xam kan mooy Mbaye Diop Safara ñang baalo du xeex du bëre bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko incha allah loolu maa la ko wax bindal teg yee. xam nga loolu pour lan la yokk courage ay supporteurs am ngir ñu mën ko gunge stade mais moom xam na ne bu ñëwee bu bëree day daanu bu xeexee dama koy duma ñaŋ baalo la gën a xam kuy Mbaye Diop Safara. déggoo lu la gar gar bakkan lamb ji dag sa pud balé la déggoo lu ma la affaire jihadiste lañ ko waron def ku jek sa morom ray billahi dama koy ñaante damay takalé bopam ak batam lu leer la lay wax lu leer la lay wax amul yoy dé barki Serigne Bamba lamb ji gele way dañ ko soxlo amo si soxlo ko njaareem limaamu laay soxla ko 53 ay sey soxlo ko déggoo la man fi ay ñoom gànn fi sa balla demba yi dañ ma interdit woon dañ ma interdit amoo si trois trois mois teguma fi sama tànk kon moo lay wan ne làmb ji gars soxla nañ ko am na fuñ ko teg awma lu ma koy ñaan sarax ndongo ba mu tibb ak dooleem man tolloowu ma ci làmb fu may ñaanee góor dara man soxlawu ma daraay góor lu ma am sama ñaq moo ma ko may ñang baala fu mu taxaw dama ko fay fekk ci nii wala ci naa mu koy neex mu koy naqari dama koy daan voilà <laughs> waaw loolu bu koy day wax lu ko neex rek barke Serigne Touba loolu noonu bu koy wax day wax lu ko neex rek daf koy wax pour déstabiliser ma mais lool dawul sama yaram man ñi ma dëkkal foo ndoog ñoom ñu ngi nii fii paa newu fi barki Serigne Bam fii ay xale yu ndaw yu wënaa ñoo fi nekk setal seen bopp nag taxaw fu wóor lu waaye di daw boo accès ñun da ngay laal pétale freiné eh, ndax ñun li ñu yenu dañ koo attan te bëgg dajale mbooloo nag bu la taxee war gaynde bu ne diñ ci wéet te xam ne kenn du la wuy te ñang baalo daa war gaynde moom xam na li ko ciy fekk yee moo wax la ñang baalo day yooru te ñang baara bu yooroo wut si mbay joob safara ci suuf lañ koy foree baay jéeli lu leer laa lay wax sañu ko day day wax noonu rek day jaay làmb ju noonu rek ñang baala ñemewul jaaga ak man bu ko defee ma fital ko man si naay peur laa benn giir laa lay giir su ma la jamee da ngay wadd lu leer laa lay wax non yow bàyyi jéeli xam yow mbay jóob safara ngay waxal de non yow le premier dañuy comprendre qui est mbay safara ñang day wax nii rek li la ci am dagg yaramam ndeellu xam nga yokk courage ñu koy topp mais bu la jour ji bu arbitre daggee loxo dootu ko defati yee. bu yàgg déglu ma la combat bi déglu ma la doxkatu guddi yi mafia accu bi kaw. la boowal bi amoo siis jaxaay juboo yaakaar jamono notaire cinquante deux ay see ñëpp pare nañ pour gunge Mbaye Diop Safara ci combat bi yow gi nga borom sareet bi may ñëw ma fi yaay ni mu taxoo ni mu taxawoo ni mu dëgëree te wax naa la ko keroog lañ ko annoncé noonu rek préparé wuñ ci dara te le premier mai déggu la ma la su ma accès stade gars yi nañ xam ne Mbaye Diop Safara boo woon ak bii dugg si biir stade du benn yee lay daan ndax yooyu muy wax yooyu yëpp déggul ma la Niang Ballo day wax lu ko neex Niang Ballo li muy wax nekkul ci moom Niang Ballo stratégie lay demee xam naa ak Niang Ballo bu baax te Niang Ballo daf maa umpale te buñ dajoo runkum ba taqalikoo dinañ ko lëngu ñibbi ko dinañ ko lëng yóbbu ko mu ñibbi déggul ma la le jour du combat man la ñuy félicité Niang Ballo dañ koy encouragé bu neexee yàlla sunu borom. ñang balo qualité yamul nee naa la ñang baalo cuune la te baay jili daa ma la ko wax ñang baalo dinaa ko jaxaseeg Sénégal dinaa ko jaxaseeg àdduna dinaa ko jaxaseeg parcelle ay faayam yëpp dinaa ko wane. lu leer laa lay wax dama ko xam bu baax ñang balo mënul dafa tële sañ-sañ lay ñoddi te mbay job du mbër bu ñuy tegal alxati du mbay bu mbër bu ñuy bëreeg sañ-sañ lépp lum ci woote fii la buujoo man dama cee nelaw dama koo laxasoo sangoog moom jege naa ayu ci dum nang baalo ma la sam waaye moom may yàqal samay nelaw buntu làmb buntu million yaa ngi ni Mbaye Diop sa première part tege na mbay nang baalo na mooy téye sama deuxième tànk doo da ko defati billaay dëggalu ma la wax comme guerre lay ñoddi di ma yéen hôpital bu xefee bakkanam day des ci làmb ji lu garaaw laa lay wax man nit nañ ma boot di ma yóbbu may am lu may patiné wala lu may xel ñaar ci làmb kon xanaa booy tis ma kon booy xàjjale sama bopp ak sama baat yabeewu ma leen noonu bàyyi jiilu lu leer laa lay wax ñan baalo li ma la waxoon démb li ma la waxoon buntu teefe moom laa lay waxaat ñang baalo lii la am ci làmb ji te waa jàmbaar buñ jógee ci làmb ji nañ xam ne kii mooy mbay jëm safara kii moo jar di làmb ndax man li may wax dama koy jëfee xoolal samay combat li ma la wax lépp dama ñëw tenir ko à l'usure maintenir ko gérer ko partager ko mu détaché wu ku ci nekk li nga ciy jëriñoo nga jëriñoo ko yóbbu ñibbi li ci des ma ñibbee ak moom. yee. mu gis ci wàllu masse musculation waaw boo xoolee ci wàllu masse moom moo la ëpp bi gaawee masse bi nga jël ci combat ma seen nga a préparer. noonu la demee. kuy buuxanteeg ay Eumeu Sène Junior ay mbaytin ah ay majj majj ay bada ci combat bi du ñang baalo mooy taxaw sa kanam ngay am dara looy natable ci wetam dama koy faxas jàll man balaa maa gën a mën a kontaan bari indil ma maas kay dakara bi may bërëg moom ni mu toll woog Eumeu Sène Junior ñoo tolloo te dama koo jaxaseeg àdduna parcelle la dëkk ñoom ñaar ñoo dëkk dama koo tenir à dama ko dóor ba muy jëwal ay tànkam arbitre bi naa ko lamb ji jeexagul kaay bëree lu leer laa lay wax te ñang baalo li kooku daj lu ko raw dina ko daj ñan duma ko mooy ñan duma ko baal déggul ma la lambu ji balaa mu doon neex ñu def ko affaire jaa addi su ku jekk sa morom rey ñang baalo boppam kon instant bi nii ñu ngi ko lonk ci xeet yi di ko publicité moom xam na ne duma ko moy te du ko baal ndax ñan baalo yi mu wax ci signature bi yëpp jouru lamb ja xam na ne dina dal ci koom duma ko ko jéggal non parce que ku lu yéene hôpital bu ne yéenewu la jàmm rey la la bëgg te balaa mu maa lay rey ma rey ko ñang baaro déggul bu arbitre di teg loxo may naaw si kawam te dama ko naan cirib dama koy warax dama koy lekk ay seconde ma yéy la kii moolo gën a xam ne du ma ko baal déggul ma la ku la yóbbu roi ba demee kay di la teg ci ay jaag buggu laa faat kii balaa arbitre teg loxo sax man naaw ci kawam moom xam na loolu te kii du ma ko mooy kii du ma ko lekk dama koy yéy yow ñang baalo bu yeboo nga waajal sa bopp bu baax woo nga ci naar guuxum soow ak li nga wax pëli yëpp dina métti sa kaw di tudd samay tengaade naan ma ay dinga dellu Fuuta ak nga dellu Daar Jolof man je suis fier d'être pël man doomu pël ak Lebu laa man aw ma dara lu may daw man Tuubaa ngay jaar dugg nit ñi dugg Jolof sama dëkku yaay te na la wóor ne dootoo ko defati pël yi ngay tooñ yow dootoo ko defati de bee boo nga waajal sa bop bu baax mais note seetaan la signature bi pël yëpp la wax pël la wax kii dootu ko defati yow doo doo yow ñang baalo le premier mai di nga xam ne du ma sa morom tey du ma sa morom suba du ma sa morom ginnaaw suba dégg déggalu ma la xoola kooku du xalaatul jaagaak mbay jëf safara du ko ko def te am naa dara lu ma métti nag li Modou Lo dugal làmbam làmmiñam ci làmb ji naan ko ku dëgër bopp ngay bëreel di ko di ko di ko yokkaat beneen paa waroon na ko bàyyi mu ñëwee kumpa rek dinaa ko dóor ba mu daw ma dàq ji ko jàpp ko déggul ma la ñang baal su ma ñëwee jàpp ko daan ko sax day yomb dama koy lekk kii dama koy tenir à dama koy jax seeg àdduna dama koy duma dinaa la dóor ba ngay bëgg a dee balaa ma laa daan non nice moom la dëkkal rek moo tax da koy may confiance mais moo doo wala gën a xam kii Mbaye Diop moo loo xam na booy bi nekk géejawaay li muy saf man saf sàpp lañ may woowee barki Serigne Bamba te ñang baalo moo la gën a xam ne le premier mai li li met ci kawam lay dal neena mom ginaaw ñi mu lu sax ñokoy gënt giro sera day ñu kërëm fekk ko naan ñang baye sama tank ñang baye sama tank lepp lepp la way <laughs> mo deggol ma la lolu ay wax la rek lolu lolu ay waxu lamb la rek deggol ma la lolu ay waxu lamb la rek fils de balla ngi ni ëmma sen la ngi ni ñi kan mo leen gëna ëssé lamb té damay jargandol ak ñom damay bëre ak ñom bay naaw ñu may capté ñang balla day xaar dé lu leer laa leer kooku dawul sama yaram sax lu mu def day daanu ñang baalo lu leer laa lay wax ay ay ay Messi Mbaye teew kii rek day def ñaali borom ñang baalo am problème borom accord voyage ngi nii As Malick mbay Mbaye professionnel bi noonu la demee ñang baaloo am na Cissé nooye boo xoolee ñaari gis Mbaye Diop nekk sa plein ngeen ànd préparé buy bëree ku mel ni ñang euh, mbaalo nga gis ñang mbaalo position bi mu am ci làmb ñoom ñaar boo leen doon àtte nan nga mën a àtte comme wax ma far nag noo leen di àtte. non far far force. Ah. dégg nga far que nit boo yéene xam nga nit boo faral nit boo yéene laa wax dama ci cadre far sax dama ko yéene si mu nuyoo dinañ ma comprendre quoi mais dama ko yéene ci combat bi moom c'est parce que da da ko fa xaar te bu ñu amee combat ñun ñëpp lay sonal quoi moo tax man dama ko man nag si comme ça quoi man moom du ma xeebal kenn leen nam mais balaa dara xaw dama koy ñaanal bu baax suñu borom may ko ndam mais lépp lu muy wootee ci ay affaire u giita ngaas ak affaire yooyu noonu ëpp lu ko saf mais ñun xamul lu toujours la moo tu giita ngaas tu dara ndam la moo ñu ñor doxatu guddi ñoom ci kaw la doxatu guddi ñoom ci kaw la mais safara ak ñang baalu ci suuf la te dañuy ñaanal safara yàlla suñu borom may ko ndam te na liggéey naa waaj na bu baax a baax a baax a li am solo mooy yàlla ñu yàlla may ndam la jour a waxee tout koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam bu baax a baax a baax wax ne gars yi xam nga nañ ko gën a jàppale waat blog yi bari xam nga géej ñëpp génn dem soutenir seen doom yi suñu borom defal leen ndam xam nga parce que làmb loolu la sa gox dañuy génn pour soutenir la xam nga géej waay nañu xool si si yeneen gox yi yeneen gox yi bu seen doom yi génnee nañ leen di toppee xam nga am na solo trop trop trop trop poka poka tey jii ñi nga gis ñii ñii bokkuñu koñ de ñu jaxaale dëkk ñi daaru te bu neetaan amoon di ñii ñëpp ay lekkante mais tey gis nga dem lamb moo boole lii tey safara moo boole lii tey xam nga nañ leen wax ne xam nga xol yi gën a doonaat benn ñu dem nga safara mu nga muy ak bébé guy gi tamit war na bëre aussi Fadam Junior war na bëre ñoom ñëpp suñu borom defal leen ndam. mu mel ni mu mel ni le le production dafa indi tër bi diggante parcelle ak géej waaye ndax su mbëru géejawaay quatre personnes dañ ciy bëri Marcel tam yaakaar naa ni booy yoon mafia bi ñëpp dañuy loolu du doon pression ci kaw Mbaye Diouf. non non loolu wala bëri xale boo xamante non loolu mbégte la ci la ci géejawaay parce que tout le temps tout le temps tout géejawaay parcelle géejawaay da siy génn géejawaay parce que ah si Modou Lo Balla noo koy gisee tout le temps keneen ak keneen foofu keneen foofu tout le temps da ngay gis fii sa Balla rek Gora Sock defal ko bagage voilà loolu la géewaay ba ak kii du du du du te ñun sax ñu bàyyi leen ñu bàyyi leen case ba case ba ñu leen bàyyil parce que case moom ñu ñoo ko moom mais ko bàyyil tuuti tuuti tuuti noonu mais li ma a xamal mooy ñu ngi ñaanal Mbaye Diop bu baax di ko ñaaxaat bu baax ñaan yàlla suñu borom may ko ndam bu baax a baax aussi di encourager jeunesse bi yëpp di wax na gars yi xam nga nañ génn fii ay xaritam rek ñoo fi nekk ak ay booyam gars yi génn jàppale ko xam nga soutenir ko yàlla suñu borom defal ko ndam ci barki maam si yëpp loolu laa ma siy wax aussi loolu mooy lan xanaa sax kon daf may mooy loolu kon loolu mooy waaye gaan mu laaj loolu waay gaan wax non non waay léegi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko tëgg léegi ñoom ñoo ko tëgg ñoom ñoo ko tëgg stade bi Pikine la nekk mais du ñu fa ëpp seen ay mbër du ñu fa ëpp seen ay supporter du ñu fa ëpp loolu dama mën ma sa waay lan ngay tax. baa jëli waaw di santaat yàlla rek di santaat yàlla bu baax ndax xam naa ne jooni bu ma gérelee mafia bi fee njool ak Gris Bordeaux géré jaxaay suuf bi. non arène national Demba Kanté géré amosis bi ñoom Bamba géréel ma Bagdad Bamba design a ngi nii ñoom gaawaan ñoom zaal non beneen affaire la te risque ngi ne sama douanier bi and ak drogué sama ñaari um de tenue yee rek bu ñëwee ñee rek buñ ma gungé won damay lek ñang baal waxuma laag ma fi yaa dokkatu guddi yi ñoom aas njool taxaw ni xam nga fallu maire suñu futur maire bi taxaw ni makoy bëggé waat bu baax xam nga waju baax waju ñak ñaari ngi ni lu ma taxaw lu ma lu ma sombi mu fekk ma ci mok as mesi mbay me xam nga fallu suñu futur maire ma ngi koy ñaanal d'ici suñu borom tagal ñuko suñu maire njaareem li maamu laay bi ndax soxla nañ ko fi waaw parce que gis nga ndaw su nekk ay moromu ndawam di leen gëstu di leen jàppale rek waaw kon ñu koy ñaanal suñu borom yéegal ay niveau day li war xam nga di bëggee kenn tamit tey moo ma jox li ma sol muy bigi bigi maa ngi koy bëggee bu baax suma grand bu baax ak copain am ñu koy wax Chris lëndëm ak seen benn yaay booy bu ñu wax Zara Sok Bitik Zara Sok Bitik yaay booy bu baax rek ma gis rek ne bigi indil mbër bitig ba ma xool nu ma def ak moom maa ngi koy bëggee di bëggee bigi di bëggee Chris Lëndëm xam nga di bëggee cinquante deux ay say nekk géejawaay yëpp dina la wax combat bi combat géejawaay la yee combat bi non loolu ñang baala du Thiès ñang baala man ak moom la ma fi yaay nañ ñëw séeral ma ci kaw li ci suuf man la ma li ba foo war dama koy def ñi yabu ma leen ñi ndam laa séq ñoom te incha allahu rabbi dama leen di indil ndam li noonu la demee xam nga du woo mbay jóg sama turandoo si combat mu ñëw jàpp ci bolo gi xam nga di dem ba France dafa woo ko ci mel ni mbay bu gàtt ak wéeku wéeku doomu jaxaay la maa ngi koy woo ci combat bi xam nga sama gaay am combat ku ci mel ni Bada ku ci mel ni bébé guy gi ak yusu doomu Balla Gaye maa ngi leen di ñaanal ndam yëpp tegaloo ñu ñibbisee ak moom géejawaay xam nga gaay yi gis seen bopp di woo di dem ba mbuur tamit di woo medun job ah medun job rakk Mbaye job maa ngi koy woo depuis mbuur ak Amadou Gueye ak saltige su ma benn bu may ñaanal di dem ba caajaay dafa woo ko ci mel ni màgget màgget professeur maa ngi koy woo ak Omar Yung doomu ndayam monsieur le maire xam nga di woo dawalkat sare di nekk géejawaay yëpp képp ku naan ali naan kor maa ngi lay woo ci combat bi xam nga non rek moom aléyaa mu yor bëriwul saret ñun banlieue digg banlieue a nekk ñun am nañ njaareem am nañ marché njaareem am nañ mattma am nañ baylaay am nañ marché bees am nañ marché maam jaara am nañ pàkk baay Moussa na yaru rek am nañ basin ba am nañ gunaas am nañ marché xelkom am nañ marché maam jaara am nañ suufu lycée am nañ kaw lycée waaye na yem waay ñun ñoo moom fas ñun bu gaa yi dëgëree ñun ñoo xàll géej gi mu neex naqari dañuy chargé dañuy génnee ñang baaro na yaru rek kooku yarkatu xir gu xir xaw ma xir dun lañ nga xaw ma golo la na yem na yam ci goro yi bàyyi ñu man ñun ñoo mom nag yi ñun ñoo mom fasi na yaru rek lool la am luma koy kalaame xam nga di wo sama papa la job mu jàppale ma ci bolo gi wa di bege tamit kenn ci man juma mo ñu abal fi ha ah. juma maa ngi koy bëggee ak rakam euh ki num tudde ci sax duru duru rak juma tamit maa ngi koy bëggee ak sen patron Mbacke maa koy di ziar bu baax xam nga di bege Omar Dieye tamit sama magan ah. Omar Dieng Sox mag maa ngi koy bëggee jàpp na ci affaire yi trop xam nga ak Baye Mass Café ga maa ngi koy bëggee bu baax ak Baye Dam Papay Saka maa ngi koy jaar ñoom Demba Kanté ñoom Aziz Bara ku ci mel ni Gana xam nga staff équipe maa ngi ciy jiital turu prési paate prési maa ngi koy jiital xam nga ak suñu entraîneurs yi ak sama mbokku mbër yëpp maa ngi leen di xam nga ñu waajal xam ne le premier mai jour ji mooy quatre jours ah ñu waajal di woo waa Kër saar nag Kër ma saar maa leen di woo di ko teg si loxo risque ak nombo ak dorogamee toog ñoom Omar Saw xam nga ñoom Mouhamed di ga gaa yëpp ñu xam na làmb ji seen làmb la xam nga ak waa Cenaba waa Touba wa Daaru xam nga waa Caajaay waa Fatick waa Pataar Caajaay dama fay woo kenn ci mana ah, muy Pap Mbocc dama koy woo ak Pap koy ñu koy wax Pap Kase ak Mamadou borom Angleterre Mamadou borom Angleterre maa koy woo ci combat ak eh, grand frère comment dire sax oh. waaw comme non rek yaa ngi ci xel mi mais xam nga wa moy lol ma ngi wo gaay yeb wa di len wax ñu wajal le premier mai jege si xam nga artiste yu géejawaay yeb ma ngi len di kep ku yewo yeewoo géejawaay ma ngi lay wo ci combat bi xam nga ñu teew dolel sen rak sen set sen dom sen jarbat wa inshallah le premier ñu dem mo dóor ñang balamu daanu ñu ñëbbi waaye